جوف الفرا للورى مثل ما بنا نيبي سيلانو ام جوف الفرا للورى مثل ما جوف الفرا للورى للورى للورى جوف الفرا للورى مثل ما للورى مثل ما samsu soo daan fallu yàgg nga yaa di samsu soo daan fallu yàgg loxo ca kaw yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga nam bi soo daan fallu lay yaa di samsu soo daan fallu yàgg ngay daan nga nam bi soo daan sëñ fallu def sa mag ja ab seen bay sa sam madam def sa mag ja ab seen bay sa sam loxo ca kaw def sa mag ja ab seen bay sa kaw nuudu borom xayra kaaba gaa nga tuubaan nuudu borom xayra kaaba gaa nga tuubaan si nuudu borom xayra kaaba gaa nga tuubaan nuudu borom xayra kaaba gaa nga tuubaan yam ñi di siyaare diggante Alaaji Mor ak Cheikh Mamadou Fadal waaye diggante Alaaji Mor ak sëñ Modou ak sëñ sëñ Abibu kenn ku ci nekk ci ñun xam nañ fi ko sëñ Alaaji Mor tegoon ñu itam xam nañ fi mu tegoon Alaaji Mor daana diisoog moom daan waxtaan ak moom ci lépp lu mën a doon kon tey bu bisam dellusee sëriñ bi dagg yitteem yépp ñëw teew fii ni ko magam léppam demee mu sëriñ Cheikh Oumy Mbacké mi nga xam ne moom fi la yendu ci kër gi ci kër gi di këram kon moom itam bu bàyyee ba ngoon mu ñëw moom itam mottali si waat coloré dafay mel ne kon sëriñ Abo ñëw na fi njabootu sëriñ Fallou gépp teew nañ fi tey te loolu nag dafay mel ni ku fi ñëw li génnee nga ndax kenn ku ci nekk alaaji Mor amoon naa yow coloré gu mat sëkk sëkk gum daan doxale sa yow ak digganteeg sëñ Fallou kon nag tey ñoom ñëpp sant nañ leen waaye yaakaar naa ne alaaji Mor it sant nañ ñoom ñëpp ndax kër gi ku sëñ Fallou jur rek xam nga kër gi yàgg nga fee ñëw ca kon na tey bu sëriñ bi bu bàyyee yëppam ànd ak sëñ Fallilou Bousso mii nga xam ne kenn ku ne xam na ne waajuram sëriñ Ousmane Bousso ak Alaaji Moor ndax wax ba Alaaji Moor nekkee ci daara ji nekk ci kër gi di liggéey sëriñ Ousmane Bousso lañ ko booleeloon mu yoroon fa bitigam di fa liggéeyal kon tey bu doomam ñëwaatee ci jataay bi ànd ak doomi sëñ Fallu lool du asaar kon sëriñ bi ñu diglu ko mu sànni ci ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yi la daf ko wax léegi joxoon na nit sax ne ko na ko kooku waxal li muy wax ma ne ko déedéet na génn ci sawlaam ndax loolu mooy gënal bokk yi moo gënal ñëpp bisimilah sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sama bokk yi jullit maa ngi leen nuyu kenn ku seen sant tey tàmbalee nuyoo bi ci sunu kilif fekk muy soxna maam bu sa Mbàkke bintu Cheikh Amadou Fadil ak sunu bokki bokk yi nekk di sëriñ Baara ak Cheikh Abdou Fatah mu sëriñ Baara ak njabootu Alaaji Sëriñ bi fekk. bi may ñëw maa ngi ànd ak sëñ Fallou Bousso moom sëñ Ousmane ak sëñ Fallou Gala Sylla sëñ Balla ak yeneen bokk taalib yi ñoo fekk bokk yëpp ñu teew tey nag maa ngi wax sëñ Fallou Guèye la Alaaji Guèye li ma fi indi mooy seede tey bisu seede la waaye bisu assurance ndax Alaaji Moor bisu tey bii daa mel ci la am ngërëm sëñ Tuubaa ngërëm sëñ Tuubaa mooy lan bis bii la ko sëñ Fallou di joxoon dëkk bi ngeen yor. ndax nee na Moor. li ko andi fii ci dëkk bi moo fi andi ñëpp mu di pas-pas pas-pas moo boole murid yëpp ak Serigne Touba waajuram nekkoon ci jógee fi mu ñëwaat fi moom nekkaat ci tarbiyewu ba am ngërëmal Serigne Fallilou nekk fii di liggéey ba bis Serigne Fallilou wax sëñ bu Bousso ne ko man de bëgg naa ko yoral dëkk bi ca booba mbokkam moo ko yoroon. mbokkam moo ko yoroon. muy Serigne Abdou Bousso. nga xam ne doomi Serigne Afia. dëkk bi nag. sëñ Modou Rokhaya Bousso. sëñ Modou Rokhaya Bousso. di jërbaat Serigne Touba. di jërbaat Serigne Touba. bokk ak Serigne Ousmane Bousso ak baay. sëñ Balla Bousso ak sëñ Balla Bousso sëñ Cheikh moo leen jur doomi sëñ Cheikh doomi sëriñ Bousso bi la mooy taawub sëriñ Bousso bi soxna Roqee Mbàkke jur ko di boori doomi maam Anta Sali sëñ Touba nijaayam la waaye doomi nijaayi sëriñ bi la moo njëkk yor Touba loolu histoire la boo da ko nettali. loolu histoire la. laaj na ñu boo koy nettali. ndax laaj na mbir boo ko dee nettali. ñu xam fan la cosaanoo. baag si foofu. dëkk bi dëkk bi. sëriñ bi mësu koo jox ab jàmbur. mbokkam la ko njëkk a jox. muy sëñ Modou Rokhaya Bousso. di ab jarbaatam. bi sëriñ Modou Moustapha yilifee Touba. ab taalibeem la ko jox. muy ki ñuy wax bu Dieng. bi fi sëñ Modou Moustapha bàyyi ko. sëriñ Fallou yor dëkk bi. sëñ Abdou Bousso la ko jox sëñ Abdou Bousso la ko jox di doomi nijaayam ba mu fi jógee 1966 la joxoon El Hadj Mor Gueye dëkk bi dama ba waxee ne damaa bëgg ku ma ko yoral sëñ Ousmane la daan waxtaanal ci lu bëree bëri ba mu ko waxee mu ne ko Mor Gueye de mën na ko mu ne ko defe nga ko mu ne ko waaw ndax gis naa ne day lépp loo xam ne dénk naa ko ko su ma koy laajaat ko joxe woon. na ma ko joxe woon. la ma koy delloowaat. loolu loolu di lu wér. mu ne ko waaw baax na. toog ay fan. woo ko mu ñëw. mu wax ko. mu wax ko ko. mu ne ko xalaatuma ko. mu ne ko déedéet. kon damay damay garanti. mu ne ko ah kon danga may garanti. garanti mu ne ko lu tax. garanti mu ne ko lu mu ne ko dëkk bii. bokk sëñ Bamba yaa ngi fi. bokk sëñ Bamba yaa ngi fi. doomu yee sëñ Bamba yaa ngi fi. taalibi sëñ Bamba yaa ngi fi. danga may warlu ne ma. garanti ne ma. dama doo fi yàqu. doo fi yàqule. sëñ Fallu ko waaw. sëñ Fallu ne ko waaw. mu ko nangu naa. mu ne ko nangu naa. nekk na fi ko nekk na fi ba bàyyi ko fi. kër yi sëñ Tuubaa yëpp. kër yi sëñ Tuubaa yëpp. ku nekk aw yow. jaxasoo ku nekk yow am na gaaw ak jaxasoo kër gu ci nekk ci boppam boo fa demee dubal na fa njabootam xam ne Serigne Touba kenn la xam ne Serigne Fallilou moom amul kër daa dugg ci biir Serigne Touba rek la mu waxoon ne du du doom ji bëgg a doon baayam ndax nee na amul baay du du taalibi bu bëgg a seex it bay seex seexlu nee na dafa si biir Serigne Touba rek dafa xuus si biir Serigne Touba rek di ci dox xuus ci biir sëñ tubaa seey ci sëñ tubaa bay sëñ tudd sëñ tubaa képp ku ñu tudd sëñ tubaa tudd ko ca rek noon la rek te damay jàpp ne te jàpp ne ne ci xef yi ne ci xef yi ne ci xol yi ko gën kon nag alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Fall mu ngi ci xol yi alaaji moor fii dëkk bii fii dëkk bii nga xam ne moom la sëñ tubaa gën a bëgg ci àdduna ku ku ñu wóolu ba teg ko ci loxo ba teg ko ci loxo. seet nañ ba sa jikko attan ko. sa biir attan ko. sa pasteef attan ko. sa taalibe attan ko. loolu ñëpp xam nañ ko. ndax sëñ Tuubaa fu ne mas na ko faa liggéeyal. mu nangu ko. waa liggéey ko ci Tuubaa nag. beneen loolu beneen affaire la. kon nag ku mu nangul ku nekk rek. war war nañoo xam ne. war nañoo xam ne. am na yaar dañ ci yow. am na yaar yu dañ ci yow. yàlla denc yow. am na ya loo xam ne yàlla denc na ko ci yow. ndax képp koo xam ne. yàlla dimbalewu la. doo ko defal dara ci dëkk bi. kon ndax Touba. arasa allahu taala. min kulli makruhin wa maquufin. da ko aar ci lépp. mu lu ñu ragal. ak lépp loo xam ne si biis na ko kon nag bu yëkkatee dëkk bi teg ko ci loxoom mu doon ñeenteelu chef de village Touba te ñeent moom kenn ku ne xam ne la muy firi ci yoonu murit mooy numéro 4 di Sëñ Ahmadou Bamba. kon ñu xam ne kon soyut. Euh, boobu. mooy terbiyee Sëñ Falilu. ba mu gërëm ko. ñu yëkkati waa dëkkub Sëñ Tuubaa bi teg ko sa loxo. ba bàyyi ko fi. Sëñ Moussa Falilu. yëkkati doomi Sëriñ Falilu. jox ko ko. mu jaxasoo ak moom. kenn ku ne xam na ne. nit ki. bu bu ngeen nawlante wut doo ko tënk sa bopp. kon loolu ñëpp xam ko. kon El Hadj Guèye. ma ngi lay nuyu sëriñ Mboune. di nuyu sa rakk yëpp. ak ñi nga bokkal El Hadj Mor ñëpp. di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi. may leen fan gudd. may leen wér. wóor na nañu bisu tey bii xoolam sedd na guy ndax moom sëriñ bi rekk la bëggoon loolu ñun ñëpp mën nañ ko seere màcc gu nekk nag ak ndof la waaye man jàpp naa ne tegoon na mu fu mu tegut kenn. lu bari mën naa ndax lu bari mënoon na ko ci moom. ku amoon tàngoor la. ku amoon tàngoor waaye ku bëggoon suñ fàll la. ku ku jaxasoo loolu la. ku ak moom la. ci ci ci yu baree bëri. ci yu ba yu bëri ci yoo xam ba yu bëri ci suñ fàll. yoo xam ne xam naa ko. te moom moo ko xamal. lu bari itam jox na ma ko. yoo xam ne sëriñ bee ko joxoon mu joxaat ko ko. kon nag fu bisam nekk fu ñu ko wootelee bis war na ma faa teew seede loolu sama diggante ak moom ndax kóllëre kanam lay féete gannaaw moom wees nañ ko dootu ñëwati waaye kanam rek kon nag fas yéene nanoo feddali kóllëre googu ak lépp loo xam ne alaaji moo jabootu na ko rek da ngeen góorgóorlu bu baax. di leen wax ngeen góorgóorlu bu baax. ndax am ngeen pàddu pàgguteef. Eh, te am ngeen ndimbalit. sëñ Abdou Khadir daana wax ne jàmbaar amul. ku ñu dimbale moo am. te yéen dimbale nañ leen. dimbale ji mooy bu njëkk bi. koo fi gis mu baax rek. koo fi gis mu daa liggéey sëñ Touba. liggéeyu sëñ Touba nag. ku ci juddu. ku ci juddu. am nga ndimbalul tey am ndimbalul ëllëg alhamdulilahi rabbil alamin yal na ñu yàlla dafal cat ca dimbali leen ca may nu fanu gudd lool ca may nu wér yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule assurance ba ko sëñ Fallou assuré woon yàlla nañ ci dugg ñun ñëpp ndax ku ne xam na ne yàqu fi yàqu fi ndax ñëpp dégg nañ ko fi waaye ma see su dégg lu ñaaw lu mu fi def waaw man boog dégguma ko bokk dégguma ko gisuma ko it nekk nit ku nekk nag sa bopp nga xam moo tax bi may ñëw ànd ak sëñ Fallou Bousso dañoo ànd naroon xëy ànd tool yi sax bi ma xëyee laa naroon dem waaye damaa woo Cheikh Oumy ne ko kat teemaa ñëw siyaare jàll boo boo ñu mënoon dimbalee ba ngoon nga ñëw fi dana baax waroon wax li ma waroon wax sax. sëñ Fallou Galassi li ma waxoon naa ko. ba mu gën mu koo leeru lami. gën koo xam li muy wax. waaye sama yéene. ak sama pas-pas yi moom. fopp mu génne lu mel nii. ba ñëpp xam ne. bisu tey bii. daje ngeen fi. daje ngeen fi. ngir fedd li coloré. fedd ngir fedd li coloré. daje fi. ngir sant la yàlla ab jaam boo xamee ne. ngir sant la yàlla ab jaamam boo xamoon ne. daa am ngërëmam. daa am ngërëmam. ngërëmul yàlla mooy ngërëmul sëñ Touba. ko am ngërëmul sëñ Touba ku ne. am nga ngërëmul yàlla. ci am na ngërëmul sëñ Touba. am na ngërëmul sëñ Fallou am na ngërëmul sëñ Touba. ngërëmul sëñ Touba mooy dëkk bi kon ci biir ngërëmal sëñ Tuubaa ngeen judd ñu ngi sant si kilifa yi fi jaar yëpp sëñ Lamine ñoom ñi sëñ Abdou Fata di sa siyaare sama sang bali soxna Maam Bousso mm. ak sëñ Abdou Dieng ñoom ak Modou ñoom Mbacke Baye Serigne Thiel Baye Kër Baye Serigne Thiel Coro ndax ñoom ñoo ngi fii ñëw foofu njabootu Sëñ Tuubaa laa bu ko tuddee tudd nga ñëpp njabootu Sëñ Fall tudd na tudd na ñëpp waa ko Sëñ Baara ñëw nañ fi waa ko Sëñ Modou Bousso Dieng njabootu Sëñ Fall géej nañ teew bi ñu fi teew tey nag teewal naa fi Sëriñ Abo teewal fi njaboot gépp nag bu soxna Maam Bousso teewee rek Sëñ Cheikh Oumy teew fi mënoon nañ fee bañ a teew ndax kenn ku nekk ci ñoom ku ci teew rek teewaale na ñëpp fu ne nga nekk fa nag yàlla rek ko man waaye bu kenn teewee rek yóbbaale na ñëpp ñu ngi leen sant bu baax ci turu sëriñ bi di leen ñaanal ci tur bu baax ci turu sëriñ bi lii yàlla na yàgg waaye na ngeen fexe gën koo yaatal ndax fii moom xat na ci ni seraaji moo di sant sëriñ bi ci am penc la war a dem waaye xaju tuut fii moom ñi war a ñëw ñëpp mënuñoo ñëw waaye lu mat fanweeri minute rek pour agsi am nañ ko joon bi mënuñoo jàll si boo lëggee fexe leen fu yaatu doonte dañuy dem ba nindi sax ca penc ma ñu baasal ko fa yeyoo na lépp loolu yeyoo na lépp loolu boo lëggee nañ ko def fii xat na ci alaaj moomam ci nit ki bala koo xam mu wan la gannaaw nitu yàlla fu ñu ko xamee dëgg-dëgg mbiram day gën a dekki kenn dootu ko fàtte kon mbiram a ngi nii rek ñu ngi ne ñaanal bu baax di ñaanal ci sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko ba suñ sunu borom nangul ñu sunu taalibe dara bañ cee yàqu nangul ñu suñu jëfit ca nëbbal ñu ko ba buñ ci yàqu buñ ci yàqule kon nag maa ngi guddal maa ngi ñaan rek tàllal soxna si ñaan damay wax ne ndax moom ni ma ko waxee sëñ Cheikh rek. ndax ni ma ko waxee sëñ Cheikh rek. moom alaaj moor dama ci amu ci amu ci kii. alaaj moor ma amu ci sago. waaw ndax dafa soo xarit. ndax dafa nekkoon xaritam. waaw dama ko daan tooñ sax. dama ko daan tooñ sax. xanaa xanaa bëgg jiw soxna Ami Cheikh bëgg nga ma bëgg. xanaa bëgg gi tax soxna Ami Cheikh bëgg moo tax nga bëgg ma. ah yéen man daal yow daal bëgg naa la man daal. man daal man daal bëgg naa la daal bëgg naa la. man daal sëñ Fallou tax sëñ Fallou tax ma bëgg la. ak sëñ Mourou Sène. ak sëñ Mourou Sène. ndax dama ne su ma masaa liggéey ba noppi. dama daan ne bu ma masaa liggéey ba noppi. tool yi dama jël lépp ne ko si alaaj moor. dama jël tool yi lépp ne ko alaaj moor. liggéey baa ngi nii liggéey baa ngi nii. damaa amul lu may def. damaa amul lu may def. boo fekkoon sëñ Fall loo xamee ne xamee naa. boo fekkoon sëñ Fall boo xam ne xamee naa. damay tarbiyu ju man. damay tarbiyu ju man. ndax li ñëpp am laa bëgg am. ndax li ñëpp am laa bëgg am. te ca fa nu ma ne faatu kon ku fi nekk sëñ Fallou rek kon ku fi nekk sëñ Fallou rek fas yéene fas yéene fas naa yéene takk sama laxasaay dabaatal li ma rawoon ci moom loolu laa fas yéene bu ma daan ànd ak moom nag bu ma daan ànd ak moom nag loolu bokk na ci li ma jàppe dëgg-dëgg loolu nag bokk na ci li ma jàppe woon dëgg-dëgg yoo xam ne sëñ Modou koy wax ci man ak yeneen yoo xam ne sëñ Modou koy wax ci man ci mbaaxam la ko doon waxee rek ci wax mbaaxam la ko doon waxee ak mbëggam ci ñun rek waaye ku ne xam ne sax nekkuñ foofu ma nee na kon maa ngi koy ñaanal yàlla. yàlla ko cat teg bi. yàlla na ko cat teg bi. ndax cat kat sëñ Tuubaa daana mas daana day topp nit. ba ci bàmmeel. ñu ne diw sàngam jëtt ñaanal. kooku ni mu baaxee. kooku ni mu baaxee. te kenn ku jëtt ñaanal amut. yonent bi alayhi salaatu wa salaam. foo ko tuddee. da julli ci moom. ñaanal ko. kon bala noppi. ñun ñëpp nu maase teewlu jàng faatiha jàng ñaar fukki bisimilah rahmaani rahim ak faatiha ak ñeent fukki lexlaas ak ayatul kursi bu noppee ñu jàngaat faatiha ayatul kursi qul huwa allahu ahad falaq ak naasi addiyee ko alaaji moor ak bokkam yi ko jiitu yëpp ak bokki taalib yi mu àndal di liggéey sëriñ bi ak sëriñam yooyu yëpp ak ñun ñu ñu war na tepp ëllëg ci seen gannaaw suñu borom jéggal ko jéggalaale nu loolu ci baax lool baraana daje yu mel nii ñu dajaloo lekk naan dem defe ne def nañ dara dekk defuñu dara loolu ñoom rek la ñeel waaye ki tax ñu daje fi moom nañ ko fàttaliku ñaanal ko yàlla ak njëddal loolu bokk na cat yi topp nit ñi kon na ñëpp dajaloo nit ñi dajaloo bari lool ray yi nag defi musi salaat def fi ndaw ko ndaay xeet yu baax naan yooyu gépp sabax sabax sabax ngoon jot ba ngoon jot ñu dem ñu dem ka fi nekkatun moom te ka fi nekkatun moom duñ tudduñ ko loolu erreur la kon li nga xam ne moo ñu fi dajalee nañ koy fàttaliku du kéet du ngénte ñaanal yàlla ko fi bàyyi ko la sant le ko yàlla kon nag ni ñëpp teewlu ñu daal ciy dugg ñaanal ko bu ko defee sëriñ bi. buñ noppee. nee na mu wax leen nag la tax mu wax ñaan googee. ndax boo lëgee. ñun ñëpp ñu koy def. ndax fee ñu jëm kat. dara du fa doy. ci da fi dafa mel ne. ku fi bàyyi koo rek. dañuy fàtte. kon nag ba ñoo dem. kon nag bala noo dem. ñu fàggu ko. fàggu suñ bopp kon bisimilah. ñu tàmbali ñaan gi. ñaar fukki bisimilah. suñ fàllu déglu leen. man tey ma mbër yàlla may fale na ko buuroon bayu sëriñ Modou Bousso yàlla mi fale na ko buuroon falu jaaru na janni na mandi na daane fatu njaay fa mbuuroon sëñ Moussa Kane daane na sëñ Moussa Kane mbuura